c'est la référence. Eh, jàngeen eh, jëfati eh, ngeen ñuy toppandi ci juróom ñeen fukk yu tombal benn tey bañ a ngeen app dëkk la ma nga ca commune bu Ndiédiène mbokk yi asalaamaaleykum dal leen ak jàmm ceetu xabaar yi ci kalamay kocc ci yàttal bu ngeen loo tuuti rek ma jukki leen li ci gën a fës bokk na ci li gën a fës ci xibaar yi ab maternité bu am méngoo nag ak jamono la ñu daal di tabax rek ca Ndiédiène dugal ca nag daanaka ñaar fukk ak juróom-ñett ci ay millions lépp nag mi ngi am ci taxawaayu municipalité ba daañu ca dégg bi yaay ci biir xibaar yi jaaxale ko ci bésub setal bi njiitu réew mi fàkkaloon askan wi seneleg bu kaw Kaolack bi nag dugal na ca rek xalaat bu yees mu soxal nag lii di setal ak njëmbatum garab ci këru diine yi lew na ña seen la ko daloo ci ay bés yi ñu génn loole itam daañu ca dégg cheex Tidiane Diagne ci ay njëlbeenu xibaar yi ngir amal ay élection locale yu amul benn fitna lu ni mel nag mooy jubluwaayu organisation bi di waay nepp Sénégal samp nañu ab bànqaas ci région bi tuddee ko nag groupe 2R mu nar nag lépp wàllum jàmm ji loolee tamit daañu ca dégg Cheikh Babacar Dieng ca na mu gën a yaatoo bu li lépp yembee mbokk yi daañu ca teg xabaaru bitim réew tàggat xam ak li yéenekaay yi xëyee tey jii mu nekk li gën a fës ci ya xibaar yi neskis ñu indi ci faram-fàccee. moo nekk ci euh, waxukaay gi fegoo ci Codou Seck keneen ci wàllum xarale gi kàddu gi di àddoo fii ci studio Alioune Momar Lo taaxum kaw ma ñu duppee yi Imam Assane Cissé dal leen ak jàmm ci euh, xibaar yi ñu doore ko nag ak na ñu leen ko euh, junjee lu ëpp nag ñeen fukki garab la kër gi di Senelec nag daal di jëmbat ca lew ña seen jaarale ko ci bésub setal lëngoo ceeg nag eaux et forêt ak UCG lu ni mel yi tamit nag nekk rek ci fu gornooru région bi Cheikh Tidiane Diagne. ñeent fukk jàpp juróom fukki garab la ñu jëmbat ca lew nañu seen jaarale ko ci programme bi nga xamante ne moom la lekk daal di indi dippee ko ci nasaraan cité religieuse verte et propre maanaam jëmbat garab ci këru diine yi waaye tamit daal di koy setal ci lëkkaloogu dox seen digganteeg eaux et forêts UCG ak yeneen i jumtuwaay yu mel noone ci xalaatu délégué régional bi di ki nga xamante ne moo di Aymerou Ndiaye Senelec nag daal di na koy tàmbalee ca Léona Niassène Pape Demba tey mooy directeur généralu kër googee nga xamante ne moom la dénk wàll ko courant ci mim réew. C'était important ñuy jox client yi ne am na leneen loo xam ne Senelec mun na ko jëriñ kii bi maanaam Senelec sénégalais yee ko moom ñoo ko indi fii ba mu yegg si fii grâce à la vision de son excellence monsieur le président de la république comme jàpp nañ ba mu taxaw nag léegi nag Senelec dafa ñëw delloo njukkal population boobu xool lépp lu nga xam ne mun na participer si confort am ñu taxaw si loolu moo waral suñu participation. gouverneur bu Kaolack Alioune Badara Mbengue daal di rafetlu nag jëf ji na ko daal di dugal loxoom ci initiative bu nguur gi waaye tamit fexe ba xamante ni ñoo di askan wi. ñu def opération bi tey jii vraiment Khalifa Léona Niassène génn ànd ak ñun ñaanal ñu pour vraiment jëmbal bés bi. je crois que daal loolu lañ doon def tey jii di gërëm ñoom nag di sant ñoom. bu ñu sukkandekoo ci Aline Badara Mbeng nag nee na garab yi nga xamante ni nañu ko du ñu yem rek ci loolee waaye dinañ fexe ba suuxal ko. UCG ñi ngi fi mais aussi président de la république am na benn corps bu bees bu mu taxawal mooy les volontaires de l' environnement formé nañ leen sax bërki dem rek donc je crois que ñooñu dinaa wax inspecteur régional l'environnement et des établissements classés xale yooyu ñu leen di mobiliser ànd ak UCG pour que ñu ñëw fii ak taalibe yi pour ñu mën a suuxat garab yi nga xam ne nii def nañ ko fi pour que bu ëllëgee peut-être beneen gàmmo di ñëw wala beneen ziara taalibe yi bu ñëwee mën na seetlu ci garab yi. lew na ngeen seen lépp seet ci ay bés bi la ñu génn xalif général bu kër gi nag di cheikh Ahmed Tidiane cheikh Khalifa Niass àndoon ak cheikh Mouhamadou Mounhami Niass cheikh Ibrahima mu bàyyi cheikh Tidiane Niass ak yeneen i kilifa diine ñëwoon jëmmal bés bi bi ñu noppee sax ci lancement bi amal nañu fa benn ndege ne bëgg nañu ci jëf gile ñoom kilifa yi. jaajëf euh, Cheikh Tidiane Diagne bés boobee nag dafa yemboo képp rek ak édition bu njëkk bi ci atam 2022 euh, Sénélec itam xalaat bi mu ci am tolloog bëgg-bëgg njiitu réew mi ba tax na sax moom Gornoor mu ne lu rafet la euh, te it nag dina bokk ci lii naatal waaye tamit taaxal dëkk bi Alioune Badara Mbengue ak Cheikh Tidiane Diagne. je crois que lu am solo la tey jii li ñu def nii parce que bu ngeen seetloo le président de la république joxe woon na ndigal loolu sax la woon ba mbas mi ñëw bi mbas mi ñëwee nag ñu suspendroon ko décembre bi digal li ñëwaat ba moom mu présidé koon Dakar gouverneur yi présidé aussi ci région yi bu ngeen seetloo le 4 décembre bële demoon nañ ci école yi def te set setal dem ci mbedd yi tey nag ñu waroon ko def le premier janvier mooy samedi bi ñu premier janvier jour de l'an président de la république nañ ko def le dimanche muy édition bu njëkk fii ci atum 2022 dafa am xalaat bu rafet sociétal d' entreprise dugal ci loxoom directeur général joxe ndigal délégué régional bi mu ut ay garab yu bëree bëree bëri indi ko ñu mobiliser ñun aussi UCG mobiliser les volontaires de l' environnement mobiliser xale yëpp ñu ñëw fii commencé ko ci léew nañu seen samp fi ay garab yu am solo vraiment pour yokk ci set setal bi dafa nekk lu am solo parce que garab moom je crois que boo seetloo mbeddu Kaolack yi ñu bëri dañuy wax Kaolack mbedd yu rafet a rafet la yore loolu yokk garab yi nga xam ne ñoo nekk ci avenue Kaolack yi bu ko defee Kaolack gën a naat mu ci profité vraiment pour féliciter remercier directeur général Sénélec bi nga xam ne ne entreprise am na responsabilité sociétale d'entreprise te mi ngi koy doxal bu baax ñu commencé ko fii ci Léona Niassène bu soobee yàlla ci yeneen i danañ ko wëral ci këru diine yëpp te du tax ñu dindi ndigal loolu nga xam ne moom président joxe pour ñu setal je que jëmbat dugal ci lii di responsabilité sociétale d'entreprise euh, njiital Senelec ne bu sottee nag gannaaw yàlla ak taxawaayu gornor ak ndigalu xalif bu leew na ñe seen waaye tamit jaare na ca rek waxaale jubluwaay bi euh, Papa Mademba bi tey directeur général bu Senelec ak Cheikh Tidiane Diagne. ñu ngi gërëm bu baax gouverneur bi nga xam ne tey jii nii si journée bi président décrété moo ñu ci wutal place ba nga xam ne dinañ mun a wane ne Senelec bi nga xam ne sénégalais yi moo ko moom am na lu ñuy wax responsabilité sociétale d'entreprise ne moom la ñuy jox sénégalais yi pour seen confort su ñu amee leneen loo xam ne war nañ ko mun a indil citoyen bi sénégalais bi ñu indil ko ko moo tax tey jii nii bu ñu gouverneur xajalee place bi ñu profité aussi avec le délégué régional bi may gërëm encore une fois parce que instruction yu ma ko joxoon yëpp def na ko mu permettre ñu non seulement ñu bokk ci set setal bi mais aussi ñu indi ay garab yoo xam ne dinañ ko def ci cité religieuse et cité religieuse nag comme nuñ ko waxee mooy ñu bëgg ay këru diine yoo xam ne dañu ba pare garab moo tax bu ngeen xoolee garab yi délégué bi nee na ma artère yu wër cité bi yëpp dinañ ko fa def ak comme nu ko gouverneur waxee bu ñu sukkandikoo si service régionaux yi fi nekk yaakaar naa ne dinañ leen mun a suuxat ba nga xam ne ëllëg bu ñu waree ñëw gàmm wala ziyaara taalibe yi dinañ ñëw fekk garab yoo xam ne dinañ ci mun a feexlu dinañ ci mun a jëriñoo moo tax ñu ngi gërëm bu baax gouverneur bi di gërëm tamit bu baax xalif bi waaw li garab yi moom bëri nañ ndaxte délégué bi nee na ma fas yéene nañ def artère yi nekk fii yëpp jëmbat ci garab ba nga xam ne ku ëllëg si biir gis cité bi dina xam ne cité bi non seulement set na avec les services de l'État mais aussi dinañ fi fekk cité boo xam ne am na ay garab naat na. yéen a ngi déglu xibaar yi ci Alfayda FM ñu daal di euh, wéy nag ci euh, jukkim euh, xabaar yi ay doomi Latmingué ak tund ya ko wër daan daje nag di waxtaan ci ay panel ñoom daal ñoo daal di far rek soppi mbir ma def ko nag ab mouvement lañ ca bëgg nag mooy lu defaraat suqali seenu ko gox boo boobee ba mu méngoo ak jamono Ousmane Diop moo jiite mouvement ànd suqali suñu gox bu commune bu Latmingué ñu taataan ay kàddoom ak Serigne Gueye. kuréel boo xam ne dañ ko teg fi pour gën a doxal commune bi parce que ñëpp xam nañ créé groupe bi a travers WhatsApp ci la ñuy jokkoo di waxtaan di dollante xalaat di yokkalante doole ngir lan ñu xool lépp loo xam ne mu ngi ci commune bi te manqué na ñu jëm cee taxaw ci suñ kéemtalaay kattan groupe bi nag mooy mouvement bi dafa am ay ambition yoo xam ne mu ngi koy tëral ñu ngi koy tënk ci ñaari pàcc ñaari pàcc yi mooy lan benn pàcc boo xam ne doomi gox bi mooy ñi bokk ci commune bi mooy ndaw bu góor bu jigéen muy mag bu góor bu jigéen kenn ku ne am nga ci waar woo xam ne war nga ko bay mooy pàcc bu njëkk bi te féetee ñu kaw xëy na seen loxo moo gën a gudd suñu loxo ñu am yaakaar ci ñoom loo xam ne ñoom aussi war warloon nañu ak ñoom war nañu ko defal pàcc bu njëkk bi mooy ñi nga xam ne mooy doomi gox bi mouvement bi mu ngi dajale 84 villages yëpp dëkk bu ci nekk am na fi représentant tey Caaxuma Jële loolu lu ko waral du dañ leen neexal wala dañ leen sexal suukar waaye dañoo bokk bëgg-bëgg boo xam ne dëgg moo ko lal te yaakaar naa nit ki boo ko waxee dëgg rek boo ko joxul dara sax dina la topp mais dëgg boobu rafle na tuuti suñ commune Latmingué parce que nit ñi ñu dañ lay topp ngir seen poche loolu man ak si nga xam ne ñoo fi toog loolu taxul ñuy jóg man li ma gëm mooy suñ gox bi lépp li nga xam ne gis nañ ko ci àll bi te ñu war ko mën a am te bokk ci dëkk bi bokk Sénégal te ñuy participer comme bon citoyen ñeneen yi di ko am lu tax ñu mënuñ ko am kenn ku nekk loolu war ngaa toog wala nga tëdd waxtaan ak sa njeganaay loolu lii tax lii man aw ma ko te yeneen am nañ ko xëy na sax am na dëkk yoo xam ne boo ko xoolee kër yi fa nekk du dépassé juróom fukki kër ñëpp am nañ ay courant ndox buy walangaan tali bu normal wala tali bi bu fekkoo amul Mbengue loolu yëpp daf fee rafle moo tax movement bi ñu booloo ci biir gën a joxante loxo di teewal fi bés bi pour ñi nga xam ne ñoom mouvement bi xëy na ñu ngi koy dégg mais xamuñu lan moo tax mu sox Ousmane Diop dañuy des ba tey nag ca googule ndaje àndoo joxante loxo googee nak mu mel ni ki sax jigéen ña desuñu ca ginnaaw ndax it nag nee nañu yeewu nañu léegi dootuñ nangooti kenn di leen nax ci wàllu wàllum politique ndaxte politiciens yooyee defuñ fa dara ba dara booloo jeex seen i kàddu lañu ñu dëxëñ jébbal ko Serigne Gueye. ànd suqali si gox ñu nar a ànd ak ñoom ànd suqali gox bi jigéen ñi gox bi dafa feebar su waxewu sax dafa feebar ndax gox bi amul dara amul ko ba ñuy ko gox bi amul yoon amul ndox poste santé amul dara ñun jigéen ñi bu ñuy liggéey ndox li ñuy mën a liggéeyee te amuñ ndox amuñ formation bu ñu amoon formation di liggéey waaye amuñ formation du alphabétisation nekkul yarum ganaar amuñ pépinière amuñ dara gox bi amul dara dafa feebar te jigéen ñi ku amul dara ñu ñëw ñëw jox la juróomi téeméer bëgg lay nax da ngay xam xàmmee xamuñ woon bu njëkk de waaye xale yi ñun ñoo gën a ñun ñoo teete da xam fu ñu aw ànd suqali suñ goona suñ doom yi ñoo ko këree bu sukkandiku ñu nekk nag seen gannaaw bëgg nag ñu jàppale ñu te ñun jigéen ñi dañoo lott lool soxla nañ ñu ñu jàppale lool te amuñ fenn fenn fuñ mën a jaar ba mën a kii loolu daal moo ñu tax a jug lu suqali suñu gox bi moo ñu tax a jug ñu bëgg ku ñu jàppale si loolu moo tax bi suñ xale yi suñ doom yi ak suñuy borom kër formé lii ñu ni tamit ñu takk suñuy ndigg wan leen ne leen ñu si seen gannaaw tey ba ëllëg ndax ñu man wala ñun jigéen ñi fi toog ñëpp ñoom lay waxal gox bi rek moo leen ñor poste de santé bi manqué na lool fi nga xam ne fi la jigéen ñi war a accoucher foofu normalu yoon wi baaxut suñu jëlee malade fii si ambulance bi teg ko mënuñoo am sa raara buñ jaar ndax malade boo teg amoo benn raaraalu oto yi di karang-karangi dañuy jaar si nawet bi yëpp raaraan ci kër bi si la jaar ku si ne gis ngeen yoon bi nu mel ñun daal soxla nañ daal ku ñu jàppale su lu nekk rek bépp liggéey boo xam ne rek jigéen mu ngi koy def rek soxla nañ ku ñu si jàppale ñu daal di euh, bàyyeekoo nag commune bu euh, Latmingué daal di dikk fii ci commune bu Kaolack nag fekk na itam ci jamono jooju nag ab mouvement daal di sosu fii ci diwaan bi eh, ñu koy dàkkantalee nag Kaolack au cœur ñoom nag ñu ne daal feebaru Kaolack métti na leen lool ba tax na sax jamono ji bëgg nañu ko utal ay saafara jaarale ko ci élection locale yi ñu jëm waaye lépp rek ñu def ko ci jàmm ak ci dal eh, Cheikh Tidiane Sarr. mouvement bi ñu ngi ko tuddee Kaolack au cœur Kaolack di mouvement boo xam ne li ko tax a jóg moo di taxaw ci jàmbatu Saloum Rose Fatimata Tall mooy secrétaire général mouvement. bu nu mel. mouvement Kaolack au dafa juddu ci biir Kaolack boor képp kuy doomu Kaolack muy góor di jigéen di mag di ndaw ndax ñun ñëpp ñun ñoo bokk benn feebar bi Kaolack depuis mën nañoo wax ay ñaar fukki at dañ koo gis ci benn melukaan boo xamante ni neexul kenn dëkk boo dem foo jublu ñu ne la Kaolack dafa salte Kaolack nii Kaolack naa ñun la ak ñi jiite suñu dëkk. ñu amal lancement mouvement bi nu mel ci quartier Bongré profito ci wax ci ëllëgu Kaolack jàppale jaarale ko si saytu bu baax a baax seen programme laata ñu ci jël benn dogal Rose Fatimata Tall. jiite suñu dëkk nag dañoo bëgg fi nekk nii ñu jànkonteel ak ñoom ñi nga xamante ñoo ngi ut incha allah yii di ñëw di janvier ñu dem dajeeg ñoom gis seen programme waxtaan ak ñoom ci melokaan boo xamante ni daañu téye Kaolack ci anam bu mucc ayib ndaxte dafa jot surtout nag ñun jigéen ñi. ñu bëgg nag ci élection yi ñu dem incha allah le 22 janvier nañ leen ko defee ci anam yi gën a rafet anam yi gën a teey anam yi gën a yaru buñ nangu kenn koo xamante ni dafay dugal ci jeunesse bi loo xamante ni ëllëg say waajur ñoo ciy sonn ñun nag fi nekk nii nag dañoo dogu dañoo dogu pour kaw Kaolack li mu mérité ñu am ko te xanaa boog nag nit ki booy dig ay nit di leen dig di leen dig bañ màgg nag wax dëgg yàlla nga war nee na rusee dara réaliser loo xamante ni bu dul ñoom sax seen njaboot gi di ñëw mën cee jëriñ ñuy waajal bu baax a baax élection gox yeeg goxaat ci waxtu boobu ñuy nemmeeku yenn ci ay fitna tax ba kuréel gi jàpp ne Kaolack waay waruñ nangu di delluwaat ginnaaw ak tawat yi nga xam ne yàgg nañ di ko jàmbat jëm ci pooru Kaolack ak yeneen ci ay jumtukaay yoo xam ne jamono ji soxla nañ nguur Sénégal jàppale leen ci bu baax a baax. jaajëf euh, Cheikh Tidiane Sarr élection locale yooye nag ñu euh, jëm ñu def ko rek ci jàmm ak salaam nag bari na ay kuréel ak i mbootaay yu mu yitteel junjoon naa leen ko bokk na ca nag organisation bi di Wayeneb Sénégal samp nañu ab bànqaas ci région bi euh, di ko dàkkantelee nag groupe 2R lay seenoo ko liggéey ak taxawaay bi yaatal gi ak Cheikh Babacar Dieng. organisation bi ñu duppee Wayeneb Sénégal bëgg-bëgg moo di ay yu jàll te benn am Malick bi ñu Dembiyoj te daluwaayam nekkee ca Nioro kàngam la ci bureau régional bii ñu doon samp réponse et riposte aux violences électorales groupe régional bi lañ bëgg a teg parce que dañ gis ne ñu ngi waaj a dugg ci ay élection locale te élection buñ ko waxee jongante la xëccoo fut na ay fitna day am donc fitna googu pour ñu bañ mu am ci yenn anam yi ñu mën ci toog waxtaan ba nga xamante ni acteurs yi nga xam ne yëpp ñoo ko bokk ku ci nekk dina ci demee sago réew mi génn ci ci yoon askan wi ci seen bopp yeewu xam ne élection jarul rayante waaye it lépp am ci fair mooy li tax a jóg groupe 2R bi. waaw groupe régional bi nag euh, li war a nekk taxawaay mooy alerte précoce maanaam boo xoolee dafa di gëstu ci gox yëpp yi nga xam ne moo nekk ci région Kaolack yan xeetu fitna moo mën a juddu donc buñ ko teelee nemmeeku waxtaan ci ñi nga xam ne ñoom ñoo ci war a indi saafara muy nguur gi ak ñeneen ñi nga xamante ni mooy kenuk mbaar waxee seen kàddu mën a may nit ñi ñu daal moytu yenn mbir yi. weccante kàddu yi ñagas nag ak tuumalante bi ñu ne mekku ci pré campagne bi ci Kaolack day wane ne ñii ñu doon samp seen liggéey démarré na mooy lim Malick Ba le waaw niñ ko fas yéenee gérer mooy buñ ko teelee nemmeeku comme ni nga xamante ni ni nga ko waxee ñu koy gis ci la ñuy nag jéem a dox ay jéego yoo xamante ni ñi nga xam ne ñooy kilifa yi ku ci nekk xam lan mooy sa wareef parce que ginnaaw élection yi ban beneen dund buy ñëw wutee ba pare am na beneen dund buy ñëw donc loolu yëpp dafa aaju ni ñu waxtaanee ko parce que li ñuy wax dañ ko war a péncoo buñ ko péncoowul rek dinay am gàllankoor yu programme bii nag union européenne moo ko financé ginnaaw boo xam ne waaye nepp day intervenir ci wàllum bu benn violence am ci élection ca Mali ca Bénin ca Nigeria ba ci Sénégal bii di waajal ay élection locale yoo xam ne campagne bi sax léegi mu démarré. mi ngi noonu Cheikh Babacar Dieng wàllum jàmm jeeg lu koy suuxat nak ca la ñuy des ndaxte itam bu lépp wéyee nag ñoo fi bokk nekkaat nekk ay sénégalais nekk ay dëkkandoor ba tax na rek ñu war koo rafetal Malick Ba directeur général ONG Symbiose moo ni xamle eh, ci micro Cheikh Ababacar Dieng. réew mi ñun ñëpp ko bokk Kaolack tey kenn du gagné yóbbu ko kenn du gagné ñu yóbbu la ñi gagné ñëpp ñooy àndaat sosaat benn mbir kon dañuy bëgg buñ gisee loo xamante ni mën na indi gàllankoor suba même ci dëkkandoo gi ci mbokk gi ak ci ànd bi ñu jéem ci wax taxaw def nekkul nag ne ñun duñ magistrat duñ ay juriste gendarme ak que nag tey ci loolu groupe bi 2R bi dafa boole société civile boole force de défense de sécurité boole autorité administrative yi nga xamante ni ñoom ñoo nekk kii pour ñuy mën a toog di waxtaan mais bu ci nekk rek am na benn point focal koo xamante ni ak ñoo gune yu nekk ci yeneen département yi pour di nemmeeku lan moo war a mën a indi fitna ci li nit ñi di def. tey ci tey ban message ngeen lancé. message bi ñuy lancé mu gàtt mooy élection kenn du gagné yóbbu kenn kenn du ñàkk dee kon nañ ko def ci jàmm mbokk mi moo jiitu parce que bokk réew rek mooy njëkk a nekk mbokk bokk gox tegaat ci bokk dëkk ñëwaat ci ba war a bokk kër kon wut waru waruñoo mun a indi gàllankoor wala mu indi lu ñu ay féewaloo ak leneen loo xamante ni ëllëg mën na yàq suñ dëkkandoo ak suñ dund mi ngi noonu mën na yàq te ñu koy seetaan ndaxte itam nag ay élection locale warul indi fitna ci gox bu mu ci mënti doon rek ñoom askan wa ñooy tabb ka ñu bëgg mu a jiite leen Babou Ngom bokkoon ca ndaje ma moo ni xamle boole ko itam di wax ne rafet na njortu ne lépp dina jaar yoon région bi moom itamit mi ngi ci micro Cheikh Ababacar Dieng pré campagne bi mu toll nii métti na te élection am di loo xam ne droit la rek daf di loo xamee ne nit ki dafa war a fal ki nga xam ne moo koy teewal ci kuréel yi élection dafa war a àndi développement loolu lañ wax mais élection du xiiroo du ŋaayoo du saagante du tamante dëmm mais élection ah man yi ma doon fekkee ak yi nga xam ne ca laa bokkoon dañ ko doon def ci anam yoo xamee ne yu rafet la mais nag léegi affaire bi du compétition boo xamee ne nit ki soo ko ñàkkee dee élection yi day am Sénégal continuer te looloo ci ëpp solo kon maa ngi oo acteurs yëpp maa ngi oo Sénégalais yi ñu xam ne ñoo bokk Kaolack maa ngi leen di oo ñu def élection boo xam ne ci jàmm maa ngi leen di oo ñu def élection boo xam ne yu mucc ay boo xam ne dañu ne baax a a baax. nan ngay gisee pré campagne bi am nga yaakaar ci jàmm ci Kaolack. am naa ci yaakaar bu baax a baax a baax ndax man je suis optimiste man yaakaar naa ne rek ci wàllu stratégie am na ñoo xam ne dañoo juum ils vont se am na ñoo xam ne aussi itam xëy na loolu la ñuy topp mais li nit ñi mun a nangu ak li Kaolackaay yi mun a nangu mooy seul le peuple est souverain kon peuple bi nga xam ne loolu la bëgg mooy élection yu paisible yu calme moom la ñuy wax donc nit ñi daal te loolu def naa war nañ ko mun am jongante man yàgg naa fekk mu tar lool lool mais après ca njëlbeen mais après gis nga soo demee ci centre de vote yi day mel ni beneen kaw la ngay gis doo gis ñi nga xam ne da nga doon sànni xeer da ngay gis électeurs yi ñoo xam ne jàmm rek lañ bëgg kon loolu moo tax ma ne jàmm li ñuy faral di amal maître El Hadji na ci waxtaan wu yaatoo ko soxna Ndeye Fatou téye ngànnaay rek te amoo autorisation téye bi rek loolu moom déli la. port illégal d'arme maanaam téye ngànnaay ci anam gu dëppoowut ak yoon. est-ce que da nga koo jëfandiku ba jëfandikoo boobu indi crime wala yenn agression yu garaaw yi association de malfaiteurs bu boobaa loolu dañ koy boole ci crime waaye su fekkee ne téye bi rek la amul leneen lu mu àndal bu boobaa loolu déli la. waaye ak lum si mën di doon El Hadji Malick Diouf di avocat à la cour ne li ni mel nag yoon ci boppam da ko war a leeral la. effectivement loolu wax naa ko parce que fi mu ne nii muy ku mën a doon boo demee këram jaasi mu nga fa paaka mu nga fa parce que loolu dañ koy soxla ci suñuy jumtuwaayu kër donc arme yooyu toujours da nga ko gis ci kër mais balaa ñu koy évoquer rek léeg-léeg benn waay def dara ci biir benn kër ñu dem foofu fekk fa jaasi fekk fa kii ñu génnee ko ne lii yëpp nangam na mais bokkul nag ak ki nga xam ne dafa nekk ci mbedd mi di taxawaalu yor jaasi wala mu yor paaka wala nga gis ko guddi mu yor jaasi wala mu yor paaka kooku noonu ci mbedd mi muy guddi walay bëccëg muy doxantoo jaasi wala paaka ak nangam nangam loolu am na lum ci namm te loolu yi tamit su fekkee ne infraction am na mu def infraction boobu kooku waruñ koo méngale ak ki nga xam ne paakaam ñu ngi ko fekk ak moom ci kër ga wala jaasi mu ngi ko moom ci kër ga wala ci tool ya wala ñu ngi ko fekk mu yor jaasi alors que mu ngi doon sàmm nagam donc ñaar yooyu a baax xool yan traitement la ñuy def ci kenn ku nekk ci ñaar ñooñu loolu yi lu mat xoolaat la. port illégal daal mu maanaam tey nga nay bu amul kayit bari na nag ay nit yu cay amlanteeg lanteeg yoon ñàkk xam di lañuy layale seen bopp ci wàllum flagrant délit nag la ñuy gën a gis ca TGI bu Kaolack gën na caa fa sa juróom-benn weeru sursis penub avertissement lay doon waaye maître El Hadji Malick mi ñu seqal waxtaan ci mbir bu ni mel ne daan yu bare. ça dépend ci appréciation juge bi ça dépend aussi ci bonne foi waa ji ça dépend également ci infraction bi nga xam ne commettre nañ ko ak utilisation arme boobu donc loolu aussi jàpp naa ne c'est pas quelque chose de figé mais intime conviction wu juge bi moom moo koy permettre moom mu xool ban peine moom lay ab fois aussi code pénal dafay prévoir benn fourchette de peine maanaam dafay wax ni condamnation bi diggante nangami weer la ba nangami at léegi nag juge bi am na droit donc moom la wax am na droit mën na nekk peine ferme mën na bari na ay nit file ci Sénégal yoo xam ne dañuy ñàkk seen bakkan ndax ay armes la ca ëpp nag ay armes blanches lay doon maanaam paaka jaaseek yeneen yu ni mel di loo xam ne nag doonte liggéey ba ca yoon di def ak jéegoy état dafay wéy di gën a fës saa su nekk ci biir askan wi. yéen a ngi déglu xibaar yi ci Alfayda FM ñu daal di uh, wéy ak yéen ba tey ci ay xabaar yu uh, wér uh, te wóor ak it lu ñu leen junjoon la ñu doon nimse nag boobaak tey jii rek ñoom askanu Ndiédiène nag mujj nay antu muy rek daal di am ab maternité bu méngoo ak jamono naro yombal wàllum paj ma ak pajuma foofee lu ni mel di xalaatu municipalité ba daloo nañu ko ci ay bés yi ñu génn ci teewaayu noix bi ay coono askani Ndiédiène yi si wàllu faj jeex na léegi commune bi am na maternité bu bees ñu ngi ko inauguré ci weekend bi barab bi équipe municipale ko tabax équipé ko mujj nañ ko tuddee aji kumba baxa njaay Bara Gueye moo infirmier chef de poste buñ njeejee amoon nañ ay jafe-jafe parce que maternité bi dafa nekk ci zone boo xam ne njeejeen ñëw ci poste de santé bi di ci faju si ku mu nekkoon loo xam ne que amoon nañ ay manquement yu bëri tey su ñëwee am maternité bu mel nii qui répond aux normes yi nga xam ne que ni vraiment population bi lépp luñ soxla bu ñëwee mën nañ ko am fii donc day doon ko te loolu ñu ngi ciy gërëm monsieur le maire bi nga xam nekk ni moom moo réalisé loolu ak euh, équipe municipale bi nga xam ne moom la àndal. suñu sukkandikoo ci baaraagey nee na maternité bi dina dimbale askani Ndiédiène ak ñi ko wër. maternité bi liñ mooy am mbégte am mbégte ak contentement parce que dafa doon loo xam nekk nii dañ ko doon xaar bu yàgg yàgg mu ñëw ci heure boo xam nekk nii dañ ko soxla woon mu nekk ci zone boo xam nekk nii yàgg nañoo bu mel nii donc loo xam dafa ñëw heure am am ak fierté ci maternité bi nga xam ne tey jii moom lañ doon inauguré. bu fekkente maternité bi dafa am solo ci gox booba tax naa ñooñu ñi woo askan yi ñu gën a préserver maternité bi ngir génération bi war a ñëw. ngir génération bi war a ñëw noa bi ay jaraaf baak jéego ya mu ca def ka ñu ko tuddee euh, personnel médical baak nañu muñee ak tamit koppar ya ñu ca dugal moom Bokar Kanta Diallo jaraafu Ndiédiène dikkaat na ci ci micro noa bi ay. dafay jaatu ndax 58 villages 37 te suñu diggante diggante Kaolack 30 kilomètres la Ndiédiène nekk chef de l'arrondissement dafa mérito maternité bu deneen ci gërëb nag ICP bi ak équipe am ndax ñu am taxawaay la waaye nag il faut nga am matériel bi nga xam ne tey méngoo na ak jamono moo tax ñu ne ñu ne dinañ góorlu la nga xam ne doomi Kaolack am nañ ko ñeneen am ko te seen doom rek ñoo ko ut en tant que maire ma nit ma fexe ba doomu Ndiédiène am ko ndax yooyoo na bañ ko jéemee nag ma ànd ak ci équipe municipale bi wax dëgg yàlla ñu yombalal ñu ko yàlla dimbale ñu tey am nañ fi maternité boo xam ne bu méngoog jamono la équipement yi docteur yi ci seen bopp wax nañ ne doy na mais ñu ngi gërëm médecin chef du district de Ndofane waaye di gërëm sage bi ndax jàmbaar la woon ndax fa nekkoon ci condition yooyu moo taxoon ñu demandé déplacement bañ jëlee leen waaye moom ma muñ ko bon ku muñ coono rek ban mën na la ci fekk bon Awa Ndiaye jërëjëf Baara aussi noona ñoom ñëpp jërëjëf mais biñ ñëwee it ñu xalaat tuddee ko maire boo xam ne Kumba Ndiaye du kaddu mérite la ndax liggéey na fi njeejeen loo xam amul kenn ko mën a liggéey boo gisee ñu xalaat ko nag nit su defee lu baax donte génn na àddina war nga ko fàttali njobootam xam ko ñu góor góorlu ñu xam nit warta ut ngërëm tey rek wala lu mu am war naa liggéeyal suba ndax bu demee ñu fàttali ko ko moo tax ñuy fàttali ko mel ni Kumba Xajaay ma ne su fekkoon ne daara la daara kokki laa ko doon tuddee ndax rek li nga xam ne def na ko ci doomi aadama yi mbooleem koo xam ne dugg na fi dafa ju na wér yal na ko yàlla saafara donte nag xam naa ne parehut ndax ñoom ñii amuñ ay seen abdou ñoom it noona jilee xaar noona man dama koo def muy suma priorité su neexee yàlla lu ma ci man bañ nekk ci condition yu baax dinaa ko jéem su neexee yàlla ndax li fi manqué ñun ñoo ko waaye ñoom xam bi am nañ ko yéene bi am nañ ko njàmbaar bi am nañ ko même dimanche dañooy liggéey bon baax nañu ñu jéem ci lañ man nga xam ne moo tax ñu dënk ñu fi ñoo nit ñu góor góorgóorlu ba condition yi baax waaye su ma demee ba mën li population bi moo tax te moo taxoon ñu denk ma vingt-huit millions bokkut ak équipement équipement bi huit millions la léegi mboolem luñ doon uti même su dee Kaolack am na fi te ñii ñu ngi góorlu léegi damay ñaan population bu Ndiédiène lii ñoom ñoo ko moom nañ fexe de ko jëriñoo liñ koy jëriñoo nag mu ñu ñëw fii ndax ñii am nañ xam-xam bi te wax dëgg yàlla am na yéene bi te ay jàmbaar lañ bon ma ñaan Ndiédiène nañ ñëw te faju ci seen hôpital. mi ngi noonu kenn nag ca notable dëkk ba jëloon kàddu ca ndaje ma moom nag rafetlu na rek taxawaayu maire ba ak ñu tuddee nag maternité boobee boole ko gi tamit di sàkku ci askan wa ñu xam li ñu am lan ci micro noa bi ay commune bi muy commune u Ndiédiène bu ma nee ne arrondissement Ndiédiène kooko fi xamul amul donc bu fekkee ne defal nañ ko teraanga bu mel nii dafa rafet pour ñu rafetlu ko rafetlu ko ci kanam yi ñu ko ko defal parce que defal nañ ko loo xam ne moo wone ne kii duñ ko fàtte ba faw parce que maternité bu em nii dama bëgg ngeen def ci seen bopp yi ndox adduna duñ ko tabax benn bés nit ki li mu am mooy da ngay defar fii tey suba nga defal lale gannaaw suba nga defal leneen xamuma ànd ak nit da ko wax lu rafetul xaw ma loolu ku ne fii bu fa sa war sax jeexee da ngay dem waaye bu jeexut it kenn mënu la fi jële boo loolu tax na kenn ku nekk nay wax lu baax da def lu baax da wax lu rafet ngeen ñoñal seen mbir teg ko ci yoon boo xam ne yoon yooni salaatul mustaqim la kër gu amul mag du taxaw bu ne bu buggee dem dafa yóbbaale mag ànd ak mag da déglu mag aji kumba baxa njaay mi ñuy wax nii tey moo yoroon fii ñaata at sama yaay la ba ma ñëwee xam naa ne mag la moo na tuddoon lii parce que ama tuddoon jotam moom ma jël équipe ñu dend ak moom mu da leen di xelal ñuy dem di ñëw di ko rendre compte loolu mooy ànd bu rafet damaa bëgg ñu rafetal ànd bi bu ànd bi rafetoo doon lii du am dañuy euh, des ba tey nag ca googulee euh, ndaje jigéen ñi dëkkee ca tund yooyee yëpp nag sant nañu rek cant gu amul àpp ndax it nag nee nañu ay jafe-jafe yu méttee métti la ñu daan jànkonteel bu ñu bëggaan a mucc Boury Dieng mu wax ci seen ak tur moom itamit mi ngi ci micro noir bi ay ñun moo am ci hôpital bi su may benn si poste de santé Ndiédiène ba suñ maire bi toogee ba léegi di monsieur le maire Kanté Diallo ñun jàmm lañ gis si moom ku ñëwoon ci hôpital bu njëkk ñëw léegi ci hôpitalu Ndiédiène bii nga xam ne am na changement bu baax changé bi jigéen ñi jaaxle woon nañu i waa Ndiédiène yi ak lépp lu war Ndiédiène jaaxle amatu waaw bu njëkk li fi nekkoon wax dëgg yàlla kenn néewul na sax na néew na waaye nag fu nekk moom changement am ndax bu njëkk boo bëggoon euh, yàlla nga tool di si am doom wax dëgg yàlla il nga jël saret génn dem bi wala nga jël oto dem macha allah ñoom mënuñ ci yow dara dañ la yóbbu Kaolack waaye léegi nag suñu sage-femme bi law la cet waa hôpital bi law la cet maire bi nag mënuñ ko fay li xam moom la ñëpp doon wër ci suñ gox di njeejeen monsieur dina ko fi muy matandike bi tubaarkàlla jigéen ji si bëgg am ci biir lal yi mën nañu ventilateur yi mën nañu kilim yaa ngi ci biir mi ngi noonu équipement ya lépp yemb na te it nag maternité boobee dina tax nag jigéenu njeejeen ak tund ya ko war yëpp nag dootuñ jëggaane ci médecin district bu Ndofane moo ko xamle docteur Demba Waar Sall Dia mi ngi ci micro bi yaay. naa ne maternité moom am na solo lool comme ni ñu ko gisee muy bâtiment yi di équipement yi ak personnel bi ci war a liggéey yëpp yem a tàmbali dina jàppale bu baax jigéen ñi surtout seen faj te loolu ak course yi dina gën a yombal te itam dina xeex ndeeteelu jigéen ñi ak seen doom loolu nga xamante ni jusqu'à présent problème la suñu réew donc lu mel ni suñ ko amee tey vraiment ci ci góorgóorlu waaye tam parfois moyens moo dul mat donc su amee lu mel ni dañ koy sant di ko gërëm autorité en particulier le maire de Ndiédiène ak ñi nga xam ne moom la àndal ñëpp te nga xamante ni am nañ gis-gis ba mën a taxawal lu mel ni li tey dina dimbali jigéen ñi dimbali population de manière lu jàll Ndiédiène sax dund bi yëpp dinañ ci gis seen bopp. xabaar yi bitim réew. yegsi euh, nañu ci ñaareelu xaaju euh, xibaar yi bitim réew Cheikh Tidiane Sarr ana foo koy dooree. ca réew mi di Mauritanie lañ koy dooree wax ci euh, njiitalu réew woon ñu koy wax Mohamed Ould Abdel Aziz jamono ji nee nañ dafa feebar gannaaw bi nga xam ne nag jotoon nañ ko tëj kaso ko nag moom Mohamed Ould Abdel Aziz nag ñu teggoon ko loxo daal boobaak léegi toll ci juróom benn weer ñu koy doon tuumaal ne daal dafa laale ci luubal alal jamono bi nga xam ne jotoon naa jiite réew mi ñuy wax Mauritanie nee nañ daal état de santé am jamono ji soxna Ngoné des koy xoolaat xalaat bu baax a baax ndax dafa feebar tax sax euh, ñi nga xam ne ñoo koy loyal jamono ji di yëglu ci kilifa ya moom nag teg loxoom boobu dañul di wax ne lépp politique moo ko lal. xabaar yi. bitim réew ñu jubali ca Mali euh, wax ci li nga xam ne nag moo di njaxatalu assises nationales yi penco bi nga xam ne nag jot nañ ko fa amal ñu wax nag ci li nga xam ne moo di recommandation yi tegtal yi nga xam ne nag bëgg nañ ko fa jaar ca réew ma bokk na ci li nga xam ne moom la ñuy wax daal euh, amalaat ay camp militaire ca réew ma yu bëree bëri développé tamit euh, ay relation militaire ak yeneen ci ay réew waaye tamit waajal beneen texte constitution xeexaat bu baax a baax li nga xam ne moo jëm ci wàllum luubal ba réew ma ak yeneen ci ay taxawaay yoo xam ne nag nag euh, wax nañ ko ci seen njeexitalu penco boobu wante li jaaxal waa kujje ga nee nañ daal li ñu doon gën a xaar ci nguur ga moo di ñu wax ci lu jëm ci élection yi ndax ñoom élection yooyu dañoo jàpp ne ak période transition bi nga xam ne nag militaire yi war nañ ko mën a yor réew ma daal war nañ mën a doxal ba juróom benn weer jàpp juróomi at mu nekk loo xam ne nag bari na lool ci gis-gisu opposition bi foofu foofule ak yeneen ci ay taxawaay yoo xam ne daal euh, des koy xoolaat ba nag ñu bëri ca ku di naxarlu njaxitalu penco boobu. xabaar bitim réew li bi la ñuy jubali wax ci coow li nga xam ne moo fa lëmbe jamono ji élémanu jëriñ ba moo yëkkati ay kàddu jëmale ko si soxna yi rawatina célibataire ya moom mi nga xam ne moom la ñuy wax Abdel Hamid Beyda lu mu wax jëmale ko ci soxna yooyu nga xam ne ñu bëri ci ñoom ay célibataire lañ te réew ma daal nee na euh, daanaka ñoom kenn waru leen fullaal dem na sax bay wax ne ñoom célibataire yooyu daanaka ab marchandise lañ mu nekk loo xam ne nag ñu bëri ci nga xam ne xeex ak ak tënk bu baax a baax kuréel yi taxaw temm ngir dal ci kawam yenn ci candidat yi nga xam ne sax ñu ngi daagaan baatu askan bi foofu la ca réew ma jëm ci élection présidentielle ñoom tamit naxarlu nañ ko wax ne soxna yi ak quel que soit seen statut ñoom ay euh, nit lañ kon dañ leen a war a respecté rawatina célibataire yi ndax dañoo jàpp ne jigéen ñi dañu leen a war a respecté ormal leen bu baax a baax moo gën ñu leen ni askanale wala sax ñu leen ni xoole yenn ci bëri. xabaar yi yaram bak euh, bàngook xabaaru euh, tàggat yaram laataa nag ñuy àgg ak yéen ci xët moomee ñu tuddee nag yoonu euh, Cameroun dañu leen di dégtal rek kàddu ya Bombardier ak Balla Gaye numéro 2 gannaaw seen combat ay bés yi ñu génn ba noppi itam demal leen ci infirmerie bu Tanière ba ak xibaar yi ñu leen bëgg a jotal lépp dañu ci ànd ak Serigne Moussa Kane. Ngoné Ndiaye maa ngi lay fay te nuyu ma ko auditeurs yi di la ñaanal jàmm di ko sàkku ci ñoom laataa ñuy àgg ak yéen ci seen rubrique yoonu Cameroun xibaaru tàggat yaram yi di leen ko doore ak équipe jox bi ñu jox xibaar yi mu mujj nag ci jëm ci tañeer bi nag ak jamono jamonoy coronavirus bi docteur Fadiol la ñuy déglu ci micro rajo Alfayda. waaw par rapport à état infirmerie bi dañu jot benn information Cheikhou Kouyaté la ñu téléphoné mu wax ñu ne démb dañ ko testé ñu gis ne c'était positif donc malheureusement test bi ñëw mu am feebar foofu Angleterre ñu test ko positif moom il faut nga toog juróomi fan ñu soog la retesté bu fekkee ne nag test bi ñu defaat ci juróomi négatif na ñu soog la mën a bàyyi nga génn Alfred euh, Gomis tamit le 29 dañ ko testé woon Italie moom tam ñu gis ne test bi dafa positif woon donc Italie nag moom juróom-ñaari fan la ñuy def nit ñi en quarantaine bu mois de janvier bi amee quatre jours ñeenti fan ci janvier bi ñoom ñaar ñëpp dañ leen di testé waat pour seet ndax euh, feebar bi bàyyi na leen wala di fekkee ne test yooyu tamit négatif na si lañ leen di soog a bàyyi ñu mën a voyager comme ça dinañ mën a incha allah euh, fekk ñu Cameroun. jeexale ko ak bëre dóor fukki at ak juróom-ñaar la def ci arène bi moom mooy juróomeelu du feetam kii di Balla Gaye de doomu Double Less ji nag dafa ñàkk ci samedi gi ci kanamu ki nga xamante ni moom mooy bombardier di B52 diggu doomu Mbour gi nag ba waxee xam ne maa ko ëpp gis nañu loolu du lu ñuy sax nekk fii kon ni di ko wax ñu jàppante moom xam na ni kii mu jàppanteel moo ko ëpp doole foofu affaire xale mag mu sàggan mag mu am hygiène de vie mën na nekk mais mag muy entraîné comme yow di lekk lu baax am benn xale du la ëpp doole doo génn saako yi muy def action ñun victoire ñaata yoon laa taxaw woo ko ci biir géew mu bañ mais li ma la ma non amul lan lu ma sumay supporter du taw féex la aw ma ci défaite aw ma ci dara du question sax décision arbitre ah, du question avertissement parce que arbitre woon naa ko réewul quand même xaaruma de maa def lépp parce que ah, mënu ma taxaw ah, dajëri si bëree di def suma dépasse lépp li may def moom deful dara donc moo taxaw avertissement boo ko amee doo dem mais avertissement non non avertissement bi ma am man action loon def action bi jaar ci bit loolu la mooy avertissement boobu ma ngoog Ngoné Ndiaye yi ñu daal di leen dégtal nag yoonu Cameroun dal leen ak jàmm yoonu Cameroun à l'affiche Cameroun 2021 fanweeri édition bekk ñett ñaar fukki équipe ak ñeent war a xëccoo nag trophée bi gën a prestigieux ci football africain ñu fas yéene ànd ak yéen xamale leen ak équipe yooyu ñu tas leen ci ay groupe tey nag yoonu Cameroun à l'affiche yoonu Cameroun à nag ñu tànn réewu Maroc ak réewum Ghana ñii di waa Maroc ñu duppee leen les Lions de l'Atlas bokk na ñeenti phase finale Coupe d'Afrique des Nations mu mujj koo jël benn yoon ci atum 1976 bi mu yegsee ci finalu atum équipe Maroc daal dina ci premier tour ba daal bokk juróomi phase finale bu Coupe du Monde bu football fukki national ak juróom-ñett ci coupe d' afrique des Ahmed Fras nag moom mooy meilleur de sélection bi dugal na fa ñeent fukki but ak ñaar fukki fan ci weeru janvier ca Yaoundé bu juróomi waxtu jotee réew Maroc dina laale ak réew mi di Ghana. yoonu Cameroun à l'affiche. réew moomu di Ghana bokk ci fédération ghanéenne bu football réewum Ghana nag daal dinay jël ñeenti coupe d' afrique des nations atum atum atum ak atum moom nag ba atum moo téye record li nga final ndax dem na final juróom-ñetti yoon seeni football kat ñi ngi leen di dàkkantale les Black Stars di biddu yu ñuul yi bokk na ñetti phase finale ci coupe du monde ci atum atum ba ñu demee ca quart de finale ak atum ci ay football ki ci gën xarañte bokk ci taarix ba di Abedi Pelé nekk ñetti yoon Ballon d'Or atum atum 1992 buteur équipe Ghana bi nag Asamoah Gyan la dugal na fa toll juróom fukki but ak benn. li ci yéene kaay yi kaay yi L'Obs, Le Soleil, li gën a fës ci yéene kaay yeeg El Hadji Seydina Omar alan bikum la mu waxoon sénégalais yi ni ki daaw moom la leen waxaat ren moom njiit réew mi Macky Sall ci njeextalu at mi kàddu yi mu yëkkati bërki dee moo njaay si di quotidien nee na Macky fa tàngalaat ceeb turbine yéene kaay diggante bilan ak campagne lim jot a def ci réew mi wàlluk mbay mi courant ndox moo gën a fës ci ay kàddoom laas yéene kaay ak wàlluk jàmm li askan wi dundee xëyu ndaw ñi yorinu corona bi ci gàttal Macky daal bi mu wax ak sénégalais yi fa wane ne moom kontaan na ci lim jot def ci réew mi mu yokk yokku ca ne weeru soin wi di ñëw ci la ñuy xamal wote député yi l'observateur na ko ma yokkal na ci wàllu koom-koom Macky wax na ci bor yi Sénégal xamee ak projet yu mag yi mu bëgg a def ci réew mi waaye na ko wóor ne 2022 bii lu bëre nga koy xaar moom Macky Sall info yéene kaay na Macky kay kàddoom yi fa doon maase askan wi fexe nuñ ko gënee bëgg ak wote yi di ñëw jaar ca xëyu ndaw ña statu Sénégal ba nekk jam ñaajo nee na 22 février ci lañ koy daloo Le Soleil yéene kaay mel ni ku naan ko gàcce ngalaama njiit réew mi Macky Sall kàddu yi nga jëmale ci askan wi la ci gën a fës wàllu yokkute la réew mi yéen a kaay na ko fa def xayma lim def ci réew mi lees ko yéen a kaay ko faa la ci yokkal défendar na jigéen ñi ne fitna wiyoo la giñ di def fa bëgg mu dakk fitna ji ci élection yi Macky ngay woote dal wàllu koom-koom mi ngi dalal xelu askan wi critique yéen a kaay na ko Macky kay fa waar politiciens yi le quotidien yéen a kaay ne fa na woo ne nañ amal élection locale yoo xam ne ci jàmm ak salaam la dal gu mat sëkk bàyyi fitna ji xamul benn njëriñ bés a tal fa doon woote jàmm ba pare sol yëre yu weex tal bi màndarga jàmm 24 heures yéen e kaay na ko njiit réew Macky Sall li gën a am solo li sénégalais doon xaar mu wax ci waxut ko a yow seetal détournement yi ñuy dégg fan yi ay milliards yoo xam ne farandooru Macky Sall yi ñoo ko sàcc alalu réew mi ba léegi dégguñ Macky Sall na yoon dana ci def liggéeyam wala danañ jàpp tëj kenn kaso déedéet laalut ko sax ñu ne déetiwaay wàllu ger gi le quotidien yéen e kaay na ko Macky kay suñu waxantee dëgg kàddu yi mu yëkkati fa mel ni rek pétard bu saxaar a tàkk ñu ndox xepp maanaam waxam ja daal saxaara ca bari waaye daraa ca tàkkut yow seetal ku ko fekk moom Macky Sall mu naan poor bu séndu ak buukul bu bluuf liggéey ba noppi na ba léegi ñu daloo ko te sa jamono jooju muy wax liggéey ba bu dee téeméer la fukk rek lañ ca def maanaam xaajut bay pare direct news na Macky kay fa mel ne xam na yu bëri yoo xam ne fàttewut ko de fa koo tay bañ cee wax te loolu mooy itti askan wi waaye nekk fi di leen dig loo xam ne ak wax joo xam ne yàgg nañ koo dégg booy na seen nopp yi te wax ja fen la du mujj ba tax Karim man kàddu yi Macky Sall yëkkati faa ci am dara la fi waxut mi ngi ko waxee ci turbine yéen a kaay ca info yéen a kaay Karim Wade ne man faay woote ñu boole doole yi ngir jëlee fi Macky Sall ak ñi mu àndal Khalifa ci turbine yéen a kaay mel ni ku ko li nga waxee dëgg ndax suñ réew mi jamono ji mi ngi ci ay jafe-jafe yu métti Déthié Fall na leen may leen moo jël sama wàll ci Macky gis nga atum bii ni mu réew mi moom Macky labañ mbir yu jaarut yoon jafe-jafe askan wi ci lii rek la ko nekkee kàddoom a kaay a yéene kaay mooy docteur Abdourahmane Diouf fa wekki teeru Macky Sall bi ñu daloo barki de moo njaay benn par benn la ca lëndëm lépp la wax yow seetal teer bi niñ ko taxawale ci wàllug yoon juridique njaw des na fa aw xambin ñu ne déetewaay yorinu teer bi ñu koy doxal ak li ci Sénégal di am ak xaalis baak lii yëpp fa war a leer ba ci taxawaayu APIX waaye dara jël milliards sénégalais yu du xaddu jeex teg ko ci teer bi naan ñu teere ngi teere ngi naka la teer te fañ ko war a xam Dakar Times itoog fa ñoo bloqué compte Sénélec yi gis nga buñ ci waxut nag fi mu toll nii Sénégal xam nga fu mu nar a jëm réew mu lëndëm turus courant bu fi ñàkk dootu xamati te su boobaa kaaraange réew mi mooy nekk ci guuta leer la neen lu leer ba yegg ca naan ñi ja mooy na kaso ga nekk ca kutaal kawlax ndangaan yëngatu na de ndax ña ñu tëj kaso ña ngay xamal geraw da la fa ñoo bañ na duñ lekk ndax fa ñoo sonn fa ñoo damm fa ñoo tay fa ñoo dee turbine yéen a kaay moo ñu ko xamal ne nañuy dundee ñoom ña ñu tëj kaso ca kutaal fa métti lool doy na ca misaal seen lekk ga ay sax moom nga gis ca biir ay 24 a kaay ca kaso taal ga ñu ngay amal grève dalaa la faim ngir ñu xoolaat seen nekkin saafara seeni i jafe-jafe beneen jafe-jafe bu nekk réewum Sénégal muy corona bi nga xam ne fan yii fa mel ni ku say fay saaraar rek di gën a bëri ci ñetti fan juróom-ñetti téeméeru doomu aadama ak benn am nañ corona Sénégal réew mi yéen a kaay moo ñu ko xamal tàggat yaram Bombardier daal moo jàpp Balla Gaye 2 fa koo mbuqi daane ko jël bu leer nañ ba Balla Gaye 2 jaaxaan arbitre bi na ko kaay daanuñ la arbitre ba suuflewaat Balla Gaye 2 ragal a song Bombardier fa la taxaw naan ko kaay ñu bëree ñu jox ko juróomi avertissement arbitre na Bombardier yaa gàddu ndam li ba tax sunu làmb ne Balla Gaye 2 kenn xàmmewut ko keroog combat bu gën a bon moom la bëree Malick Thiandoum ne Bombardier gàcce ngaalaama sa ndam li fa nga koo mérité Balla Gaye 2 moom famaa bett kooku moom du ma wax ay waxam Bombardier na ko man nag bettun ma de Balla gay 2 moo leen gën a xam ne maa ko mën fuuf ëpp ko doole ñaari yoon dama koo daan jël bu leer naññ te faa bëgg CNG bi jox ma ndam li ma ko daanee ba mu jaaxaan ndax action bi ci biir géew bi falaa ko tàmbalee sol ko dàqee ko mu daw ma katamu tànk ya xànd ak moom daanu ci saako yi te loolu yàgg naa wax leen leen gis ngeen Balla Gaye 2 fa sonnoon amul condition laa moom di ñu xamal benn waaye ak benn soxna ay yambu ñoo leen màtt ba ñu mujj faatu ñàkk seen bakkan allah yëf yaa ngi amee ca commune bu Misira yambu yu dagg ca lañ màttee ba rey fa ñaari nit ka ñu bëggoon a rey nag mu rëcc les si ko yéene kaay moo ñu ko xamal yow seetal benn xale bu jigéen daal xadi fa xamoon far far wa wann ko lor ba pare bàyyi ko xadi di ko muñ ba am doom ba doom ja am juróom benn weer fa fekk farwa woon xamaat na beneen coro bañ jot faa xuloo mook farwa ci la dawee dem jël marmet bu fees dell ak ndox tàng jir mu xëpp ko xale bu góor ba yaram wa fa soodewu ba ma nga ci diggante dund ak dee tëdd lalu hôpital xale bu jigéen ba takk dere teg nañ ko loxo bañ ko laajee nag mu ne leen hëy lii man maa ko def li tax nag mooy kii sama far la woon moom rek laa doon àndal mu wan loo ma lor bañ ko ba pare bàyyi ma ëlbatiku xamaat beneen coro ñu di ma kokkali moo tax ma fayu waa ma ne malheureusement nag yoonu Sénégal fay xaayee nit fayul boppam même buñ la tooñee donte su fekkee safar yu woon li nga wax nun moo ko def wax dëgg yàlla ñaaw na waaye nag ba mu bëggee ànd ak soo bañoon naka faaw nga takk ma rek konoon tey lii du la dal euh, lii ci euh, yéenekaay yi Shukran El Hadji Oumar euh, ponk boobee sax naka mooy ndax képp xabaar yi ci rajo bi waaye xabaar yi day wéy jamono bu ne ci 3w point radio alfayda point net jaajëfal nañu leen yéen ñi faxe woon ci wàllum déglu gi jaajëfal Codou Seck kenn mi ci wàllum xarale gi ak it waa rédaction ci njàppandal gi waaye laataama yëkkati jotaay bi ci li ci gënoon a Euh, bokkoon na ci li gën a fës ci xibaar yi ab maternité bu méngoo ak jamono la ñu daal di tabax nag ca Ndiédiène dugal ca rek daanaka ñaar fukk ak juróom-ñett ci ay millions lépp nag mi ngi am ci taxawaayu euh, municipalité ba déggoon nañu noa bi ay ci ndajem euh, daloo ba jaarale ko ci bésu setal bi njiitu réew mi a fàkkaloon askan wi Senelec bu Kaolack bi nag dugal na ci xalaat bu yees mu soxal nag lii di setal ak njëmbatum garab ci këru diine yi leew nañu seen la ñu ko daloo ci bés yi ñu génn loolu itam dégg nañ ci Cheikh Tidiane Diagne ci njëlbeen taskanu xibaar yi ngir amal ay élection locale yu amul benn fitna lu ni mel nag mooy jubluwaayu organisation bii di waay nëpp Sénégal samp nañu ab bànqaas ci région bi tuddee ko nag groupe 2R mu nar a saytu lépp aju ci wàllum jàmm jeeg élection yi loolee itam yaatal gi amoon nañu ko ak Cheikh Babacar Dieng bi li lépp yembe mbokk yi tegoon nañ ci xabaaru bitim réew tàggat yaram ak li yéenekaay yi xëye tey ji ñu ñaanal leen ci mucc ak muccule jàmmi bi rek bi ci tawfiix ak tey sir jaa ngeen jëfati Le journal Ngoulingaï, Rennes.